professeur Ama Diémé ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Rewmi FM. maa ngi lay fay nga bokk ci collectif des cadres casamançais euh, tamit euh, bokk euh, ci groupe de réflexion pour la paix en Casamance le gi ñu wees ñu doon màggal bés bi ñu jagleel résolution des conflits tey suñu dëkk Sénégal xam nañu ne am na benn conflit bi nga xam ne ay at yu bëree ngi ni nit ñi di ko jéem a saafaraal ndax tey ñoo ngi ci yoon bu baax bi. waaw euh, ñu sant yàlla rek Elisabeth comme ni nga ko waxee. 21 mm-hmm. octobre 2021. Euh, mm-hmm. mu doon date boo xamante ne ren dañu fekk ci situation boo xamante ne war nañu wax ne alhamdulilah rabil alamina mm-hmm. ndax euh, région Casamance moo xamante ne moo nekkoon région bu gënoon am yëngu-yëngu. ci wàllu insécurité wàllu yëngu-yëngu ci wàllum Euh, ñàkk déggoo diggante waa MFDC ak état Sénégal surtout euh, militaires yi. Mhm. Euh, ren passé nañ ko ci vraiment dal daal boo xamante ne sax demoon nañ bo fàtte ne am na journée internationale de résolution des conflits. Mhm. xam nga loolu donc bu amee vraiment sant yàlla rek moo ñu war mais ñu ci ñu ciy gërëm ñoo xamante ne ñoo ci yëngu guddi ak bëccëg. à commencer par sunu kuréel bu nga tuddee ñaari kuréel yi mooy Euh, collectif des cadres Casamançais. Mhm. moo xamante ne pratiquement ci moom la GRPC soxee ko. Mhm. ndax euh, ñiy sànc euh, collectif des cadres Casamançais 1982 dañ ko sànc parce que dañ ko sos parce que justement conflit bi amoon na 1982. Mhm. cadres yi ne du ñu seetaan foog ñu jóg. ñu jàppale autorités pour que conflit bi bañ a yàgg. il faut ñu saafara Mhm. donc noonu la ñu dawalee président bu ñëw ñu gunge ko ci suñu gis-gis ak moom itam ci gis-gisam parce que euh, place su président de la république ci lu mel noonu am na solo. Mhm. donc ñuy jéem a convaincre nit ñi ne leen que solution bi mun ta nekk solution militaire solution négociée rek la mën a dool mais au départ nit ñi mënuñ ko gisee woon noonu. Mhm. ñu yaakaar ne militaire yi militaire bi mën nañ ko na ko régler. demoon nañ sax ba Euh, ni ma ko faral di waxee ci njëlbeen bi dañu jël décision ne foog ñu nommer gouverneur militaire ci région bi ndax moom bu amee rek problème bi réglé wu. Mm-hmm. mais te gouverneur militaire boobu ab général la woon yàlla na ko yàlla na succédé ci kawam mais bi ñu demee ba xam ne loolu mënu koo résoudre. Mm-hmm. Euh, ñu ñëw ci jamono yi président Abdou ci jeexantal bi ensuite ci jeexantal jamono yi Ablaye Wade mais principalement ci jamono Macky Sall ma yaakaar ne état bi dafa résolument engagé ci recherche solution pacifique. Mm-hmm. loolu moo tax ci depuis deux mille 2012 ba léegi vraiment lu ñu def ci ay jéego wala ci maanaam résolution conflit vraiment euh, macha allah euh, kenn ku nekk mën nga ko apprécier fi nga toll. mais du ci Casamance mais du ci biti même ñu déclaré woon en son temps Casamance zone rouge mm-hmm. léegi waxatuñu ko. Mm-hmm. donc loolu moo ne na ne am na ay résultats ñu atteindre. donc ñu santi si bu baax a baax a baax a baax autorités yi. Mhm. képp ku ci soobu n'est-ce pas. Mhm. Euh, mais principalement le chef de l'État parce que d'abord vision moom moom moo moo moo indi lii définition pour que nit ñi dugg ci jublu ci ba joxe résultat yi ñu joxe nii. kon tey bu ma la déggee ngay wax dafa mel ni njiitu réew mi Macky Sall ci régime am la ñu gën a am ay avancé euh, ci li nga xam ne mooy processus de paix bi. oui oui je crois que loolu moom euh, wax ko wax ko euh, au contraire dina ko gën a encourager moom dina ko gën a ñaax mu gën a continuer métti mm-hmm. na parce que critiques yi du du du ñàkk certainement mais je crois que vois bu ñu jël euh, mooy vois bu ci gën te moom moo ko jëkk indiqué mm-hmm. euh, maa ngi fàttali rek keroog bu mu faloo première sortie am Ziguinchor la ko defee ñëw Ziguinchor toog fii ñetti fan te ci ñetti fan yi am na benn fan bu mu génnee dem ci àll ba moom taxaw foofu lancer appel Mm-hmm. dégg nga. Mm-hmm. xëy na nit ñi déggoon nañ ko wala dégguñu ko woon waaye ñëpp dañu ne woon teg kon nañ ko déglu ba xam lan lay def. Mm-hmm. donc loolu bu ñëwee ba jur li mu jur. je crois que euh, delloo ko njukkal euh, au contraire dina ko gën Euh, encouragé ci lu mu nekk di def. Mm. te dernier avant dernier reprise du gouvernement bi avant les après les vacances du du gouvernement. Mm-hmm. conseil des ministres moo jëkkoon jël encore dellu siwaat na ci loolu nee na ñu fexe pour que euh, région Casamance région Ziguinchor Sédhiou ak Kolda. parce que mu fa waajoon a mu fa waajoon a ñëw Covid bi ñëw c'était au mois de juillet mu ne mu ngi préparé pour ñëwaat fii euh, ñëwaat fii maa ngi koy wax parce que maa ngi ci Ziguinchor à pareil moment mm-hmm. donc. loolu wane na ne moom bàyyiwul Ziguinchor a Kolda ak Sédhiou ci ginnaaw. Mm-hmm. donc mooy njiitu réew mi. Mm-hmm. mooy suñu njiit. donc bu amee gis-gis boo xam ne ñëpp ñoo ci war a gis seen bopp je crois que war nañu kenn ku nekk takk sa tànk xar sa sa tànk jàppale ko ni nga mënee muy nga acteur politique nga nekk acteur euh, militaire nga nekk acteur société civile nga nekk journaliste nga nekk euh, communicateur traditionnel war nañ ko jàppale ak chef religieux et coutumier war nañ ko jàppale ci loolu parce que foo ci jàmm ci ci la lépp xaj donc li mu def ci jéego. Mhm. en tout cas li ñu am ci jéego ci wàllu maanaam résolution crise Casamance en tout cas maîtrise euh, résolution crise casamançaise vraiment dañ ko ko war a euh, gërëmee. Mhm. tey euh, ñu gis benn mbir euh, nee nga euh, du ci gànnaay yi lañu mën a jeexale lii nga xam ne mooy crise casamançaise bi waaye mhm. dañuy dégg souvent ñuy wax ay ratissage ñuy wax ne bombardé nañu ay zone ay nangam ak nangam jamono ji nga xam ne ñoo ngi ubbi ay négociation ndax li ni mel ànd na je crois que war nañu nangu ne mhm. que li war a mën a ànd la mhm. mais xam nga lépp loo gis na nga ci contexte xam nga boo jëlee mbir mi rek doo comprendre yu bëri waaye boo ko tegee ci contexte am véritable mm la fois historique sociale culturel géopolitique am na yu ah, même économique mhm. am nga yoo xam ne yu bëri di nga ko comprendre euh, Casamance euh, mooy euh, jeexantalu Sénégal ci wàllu lu ñuy wax naan euh, bët saalum réew mi mhm. mooy le sud mhm. donc c'est la partie la plus méridionale euh, si tu la prolonges avec le Sénégal oriental ñu nekk mu nekk région frontalière ak Gambie mu nekk ci biir Sénégal nekk frontalier ak euh, Guinée Bissau mhm. nekk frontalier ak Guinée Conakry donc jege lool Mali zone boobu bu ñuy naan zone soudano-sahélienne mhm. que l'on appelle le Sahel mhm. et d'une manière générale du point de vue géopolitique mais umpalew leen ne ne que zone boobu mooy zone bu gën a bari conflit ci Afrique juste juste justement depuis pratiquement jeexantelu ati quatre-vingt mhm. depuis Somalie ba océan Atlantique or Somalie c'est l'océan Indien ba océan Atlantique mhm. ben partout mu ngi ay conflits yu tar liés au narcotrafic liés à la géopolitique mhm. liés à l'économie parce que également bari na foofu ay ressources yu bari yoo xamante ne kenn ku nekk bëgg nga am même nii ci ressources yooyu dégg nga mhm. euh, Casamance nag nekk ci Sénégal zone boo xamante ne mooy buntu bu ngay duggee ci yooyu dëkk yu ma liim wala alors buntu yoo mën a duggee Sénégal à partir de dëkk yooyu ma liim mhm. te dëkk yooyu lu fa nekk boole ci migration yi mais boole ci Euh, zone zone plaque tournante importation ak exportation ak distribution et de la drogue dure et des armes xam nga état boo xamante ne boo amee conscience li la war ci wàllu sécurisation say ay say say citoyen ak sécurisation zone frontalière mais war nga am regard ci ñi fa xew te force de de sécurité et de et de défense li ñuy am ci renseignement ci yu mel noonu mais ku mel ni Ama Diémé doo ko xam. ku mel ni journaliste tout juste doo ko am la la seule chose parce que da ngay dégg ne xew na rek nga jéem a comprendre pourquoi mu xew. Mm-hmm. donc tout en sachant que bu ñu jógee ci wàllu ci ci période bu ñu toll nii dem dugg ci zone yoo xamante dañuy jàppoon ne bon armée bi waroon na euh, bañ faa dugg parce que xëy na loolu mooy dalal xelu euh, part partenaires yu GRC comment on les appelle MFDCI mm. ak partenaire u euh, yeneen association yu mënta doon mais euh, boo ko jëlee rek comme espèce de prétexte pour que ñeneen waruñ faa waruñ faa dem mm-hmm. mais càggante la mën a indi bi tax ba xëy na peut-être nga am surprise parce que euh, ñii ñii ñii ñii dox ci zone yooyu mm-hmm. ak ñoo bëri te ñoom seen agenda ñoo ko xam. la dernière fois joxoon nañ fi information ne pratiquement à partir du Mali gaa yi ngi bëgg a jege si zone frontalière d'avec le Sénégal mais attends donc suñu force de l'ordre de sécurité et de défense am nañu obligation tous les jours bàyyi bët ci euh, yooyu zone yooyu d'accord qui plus est boo boolee Casamance ak ouverture par rapport à l'océan mm-hmm. mais luy jógee ci océan doo xam fan lay jaar parce que frontière te amul benn post benn poste frontalier bu ngay nekk ñëw nii lay duggee Mhm. donc déplacement armé bi parfois c'est pour des euh, des déplacements dissuasifs pour que ku bëgg a jugu jugu si xam ne ah bu ma demee de xam na mën naa mën naa jànkonteel ak ñooñu parce que ñooñu itam pare nañu pour défendre seen seen dëkk. donc ñu ñëpp war nañu comprendre euh, ne que c'est pas pour violer un quelconque Euh, accord wala euh, pour violer un quelconque wala peut-être nasaxal benn effort de construction de la paix mais au contraire c'est pour peut-être aider à construire à consolider déjà li fi am loo xamante ni ñu ñëpp ñoo ci profité mooy accalmie bi ñu am. Mhm. ñu jeexaleeg politique euh, ci ay simili rek nga jox ci sa kàddu en tant que homme politique dëkk tamit foofu ca Casamance donc mu am lu xew Ziguinchor muy ay affrontement ay jàmmaarloo yi nga xam ne foofu lañ ko njëkk a gis ci wàllum politique euh, tey jii ndax li ni mel diwaan bi soxla na ko. d'abord euh, dama bëgg a wax ne rek keroog bu yëf yi amee ñun ñëpp ñoo ko ñaawlu gisuma ci benn benn doomu Sénégal bu ko rafetlu muy euh, ñoo xamante ne ñoo fa newoon mooy ñaari ñaari groupe yoo xam ne ne ñoom ñoo jàmmarloo woon parce que gisuma ci kenn ku ci bokk ci groupe boobu nga mën a ne man de kontaan naa ci li am jaakaar euh, naa ne ñi ko def ñi ko vivre muy ñu ñu tooñ ak ñu leen tooñ kenn ku nekk bi nga ñibbee sa kër euh, nga rëccu te ma yaakaar na rek rëccu mooy tax lu mel ni dootul mun a am yàlla mu bañ a amati donc man en tant que qu'acteur politique en tant que citoyen sénégalais en tant que qu'acteur du processus de paix maa ngi condamné loolu te maa ngi euh, lancer un appel à tous les acteurs politiques ak fu ñu munta doon pour que ñu xam ne euh, lii ñu am ci Sénégal am na ay dëkk yu ñu wër buñ ko amoon kon euh, fi mu nekk nii duñu doon nangu mukk mukk mukk mukk mukk li ñu nekk ñu nekkee ko mais Euh, ñu sante ko yàlla sante ko suñu jiitu réew. Mm-hmm. te ñu war koo gunge. war koo gunge parce que bépp accord bu ñu mën a am. Mm-hmm. ci réew mi d'ici deux mille vingt quatre comme moo fi nekkagum ba ba deux mille vingt quatre moom bu ci àndul du mun a am nañ ko xam nag buñu ko xamee rek du ñu am benn problème. d'accord moom mooy jiitu réew mi signature bu mën a am ay ndawam ñoo koy signé te dinañ ko signé ci anam bu mu ko gisee moom. heureusement que fu mu nekk nii lu mu ci gis sax nekk na en avance ci ñun ñëpp parce que gis-gisam moo tax ñu egsi ba fu ñuy egsi tey kon nag wax ko te jàppale ko du du du du du peut-être euh, ñàkk xam fu ñu jëm parce que jàmm jàmm jàmm rek la tudd te foo ko amee rek je crois que quel que soit yoon bu ngay jël muy. Euh, euh, dans les, la société civile, mm-hmm. muy mmh. du point de vue des religions, que ça soit islam, christianisme ak même animisme mais fu ñu commencé seeni nuyo ci suba jàmm la ñu teg ci ci ci kaw balaa leneen tokk topp ci te balaa ñuy tagoo ñaanalante jàmm. Mm-hmm. kon nag jàmm jàmm jooju. jàmm jooju comme fi la lépp xëcc. Mm-hmm. ki nga xamante ne moo gis ne man dama yaakaar ne lii ci jàmm rek lañu ñu mën a jaar pour régler ko. mais war nañ koo gën a dooleel. ñun ñëpp nag képp kuy citoyen képp kuy politicien quel que soit parti bi nga bokk bi nga bokk war ngaa jàppale jiitu réew mi pour que jàmm ji nekk jàmm ju sax ba faw parce que li ñu am ci Sénégal euh, nañ ko nañ ko garder. ñu xam ne yàlla moo ñu ko may. d'accord te loolu je crois que euh, boobu appel la bëgg a lancer ñu ngi dem ci ay local. Mm-hmm. yoo xamante ne boo moytuwul. boo moytuwul dina yee ay fitna parce que ku nekk bëgg na nekk maire. mais am ambition nekk maire dëkk bëgg nga am ambition pour que dëkk boobu nekk dëkk bu dal dëkk bu am jàmm. d'accord yow boo wootee ñu topp la kon nag en toppal ki nga xam ne moo fi nekkangum bu wootee nga topp ko bañ a def loo xamante ne dina yàq situation bu ñëpp di dund te ñëpp rafetlu. professeur Ama Diémé ñu lay jaajëfal bu baax a baax. man maa leen di remercier Elisabeth.